maam xalifa Babacar Si jël naa dama la jadwa ku ma soppal sëñ Babacar loxo yi ca kaw mooy xalifa Babacar Si jël naa dama la ewaay ku ma soppal sëñ Babacar loxo yi ca kaw maam xalifa Babacar Si jël naa dama la ku ma soppal sëñ Babacar loxo yi ca kaw maam Khalifa Babacar si jël na nama law ewaay alxaaji Mansoor borom bal xaw mi ewaay alxaaji Mansoor borom bal xaw mi Muhammadu Mansoor kooku mooy baayu sëñ bay Mansoor tiflin fii ñu màggal maam Mansoor waaw kooku mooy baayu sëñ Bay Mansoor man araftul wara sharqan wa garban wara ara kamisli fatan mansuur في سائر الورى إذا سابغ الأقوام يوما إلى العلا يكون إماما في الوراء والوراء والوراء والوراء محمد منصور سرقة غناوبا كوكو موي باي سندي منصور fa jërëjëf toog leen toog leen lamin lamin toog leen ma yeggale tuuti ma yeggale tuuti rek ngañ may leen ma tuuti rek ngañ sëy maxtaar jërëjëf tuuti rek ma yeggale seex si la toog leen ma yeggale tuuti rek may leen ma rek sëriñ Modou Abdoul Wadoud jërëjëf tuuti ma yeggale tuuti rek ngañ may leen ma tuuti rek ngañ sëy maxtaar jërëjeen jëf tuuti rek ma yeggal Cheikh Sylla damay ñëw léeg-léeg mu ne ma Seydou ma ne ko Mbàkke mu ne ma sangu sëñ Xaadim Gueye barke Sëriñ Tuubaa jàmbaari Cheikh Mamadou Lamine Baara Baye Cheikh koy sant kii jàmbaar dëgg la sëriñ Xaadim Géey mu alaaji baara damay ñëw léeg-léeg mu ne ma Seydou ma ne ko Mbàkke mu ne ma sangul lii takkal lii barke sëriñ Tuubaa maa ngi koy sant bu baax sëñ Cheikh kee sama doomu sëriñ la kooku toog sama doomu sëriñ la sama sëriñ moo sa wet muy sëriñ Cheikh Cheikh Abdoul Fatah moom alaaji Basiiru moom Sëriñ Fallu Cheikh Abdou Fatah jërëjëf Mbàkke maa ngi lay sant bu baax mu mel ne maa ngi sant bu baax moom waaw waaw oustaz Modou Fall noonu la mel de ku xew dangaa xew rek te oustaz Modou Fall daa xew c'est le grand conférencier des femmes VIP waaw kay moom koo xam ne. nañ leen may ñu génn rek may leen leen ñu génn dem leen ñëpp ko ko bëgg a topp topp ko jërë jëf bég naa lool sëñ Fallu may leen leen rek ku ko bëgg a topp topp ko kay <laughs> man xam naa li may def waaw kay ñëw leen ñëw leen ñëw leen ñëw leen nga ñëw leen ma ne ku ko bëgg a topp rek topp ko may naa la ko man li may def xam naa ko buuse wu ma barki Cheikhul Khadim sëriñ Baara jërëjëf dem leen ma yeggale jërë jëf mbay bismillah jërëjëf ku génn rek xàmme naa la ñëw leen rek ku génn naa la xàmme xam naa li may def ba ma paree dem ma fenn ñëwal yow mi jërë jëf mu mel ne kay dana baax de kenn daal bu toogee rek dana ma neex alaaj Cheikh Oumy Mbacke Fallilou bu toogee rek dana ma neex de sëriñ Cheikh Oumy doomi sëñ Fallu ji bu toogee rek dana ma neex maa ngi ñëw ci yow toogal sëriñ Cheikh daal bu toogee ni ñëpp bu leen neexee génn nekkee toog rek man sëñ Fallu ma ñor te sëñ Falloo ngee toog xoolal fi mu toog ci fauteuil bi kan moo ne ci ginnaawam sëñ Fallu la tudd xoolal maamun maamun maa ngi sant bu baax sëriñ naa Sakho ndeysaan soxna Fatima si transitaire léegi laa lay tudd naan maa lay sant sama xarit bi maa ngi moom fu ne ànd nañ fa ci àdduna sëriñ Cheikhouna Sakho day kilifa diine goo xam ne jàmbaar la fajkatu aajo la nit ku yàlla baaxal la sëriñ Cheikhouna Sakho sëriñ Cheikhouna Sakho sa teewaay bii ak sa dikk gii maa ngi seeral na sëriñ Cheikh Oumy Mbacke Fallilou sant naa la waaye gërëm naa la la marabu sëriñ naa Sakho moom la ñuy wax le marabout VIP sëriñ Cheikhouna Sakho ilimaan le marabout VIP jàmbaari sëñ Bamba waaye sëñ Cheikh noppi naa ba noppi fati bég naa soxna baali laay ñëw ak sëñ aboo mu sëñ lu ma joxe ñu yeggale soxna baali duma ci doyal barke sëriñ Touba soxna baali dafa maa defal teraanga yu rëy su màggal jotee ci moom lay ne féeteeg moom fu ma fa jógee dem kër sëñ bas mu sëñ fàllu ku ma xam boole na ma moom waaye ku ma xam boole na ak moom soxna baali di ma dimbali di ma taxaw di ma teral soxna baali seex son yi bu jërëjëf Mbakke waaye kaay kee ñeetoog ñoom sëñ Fallu ngoom mais dafa am ku tudd sëriñ Omar ngoom di fajkatu aajo ca Bambey barki sëriñ Touba Mbàkke bàmbay la nekk sëriñ Omar ngoom lañ koy wax ku yiime la damay dem ci moom léeg-léeg muy ñëw ci man di ma teral mooy délégation bee ngeen gis teel nañoo ñëw loolu jóge Bambey sëñ Fallu jërëjëf Ngom maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm sëñ dafa am koo xam ne dafa tudd sëriñ Sadeex Mbàkke doomi sëriñ Dam Atta sëriñ Sadeex yónnee na fi yu bare bari ak le PDG Cheikh Mbaye Guèye ambassadeur sëñ mu maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm soxnaa ji fay mu sëriñ Cheikh Oumy Mbàkke Falilu marraine bi moom ci marraine na bokk moom it maa ngi koy sant bu baax waaye maamun da ngay dugg bu ko defee Cheikh mbay Guèye wax naa ko ambassadeur nee na moo may sant moo may gërëm ndax lim ba defal rëy na ci moom boobu ba léegi moo ngi seetaan tele bi neen dafa am kilifa gu ko woolu bokk ci réew mi ku mag looloo tax mu bëgg a gisee moom léegi léegi sëñ Modou Abdoul Wuddoot jërëjëf Mbàkke sëñ Cheikh sëñ Modou mii ku am yërmande ci man la sëñ Modou ku ma bëgg la sëriñ Saddex Mbàkke moo ma jox teraanga ji jërëjëf ah, sëñ Modou jëf Mbàkke lu baax lu ne yebal nga ma fa fu baax fu ne wax nga ma naa fa dem ngir bis bi rek ak ma mucc sëriñ Sidi Kunta ca Cees barki démb sëñ Modou dama ne naa jubali sëñ moom sëñ Sidi Kunta fajar laa dem ci sëñ Sidi Kunta ci Thiès maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm waaye sëñ Cheikh sëriñ Abo xalifa sëñ Fallu daay yeble ku ne xam ne ne tey Madina mbooba la dañuy góob sëñ Murtalaam sëñ Fallu la ko dénk waaye xoolal kee amul jot sowru mee sowru mooy loxol sëñ Abo mooy ubbi mooy tëj mooy bëkk néegam principal mu jox ko enveloppe bu rëy moo ngi nii ne ma Seydou da ngay taalibi sëñ Fallou lii yaa ko moom maa ngi koy sant bu baax a baax sëñ aboomu sëñ Fallou waaye maamun dafa am koo xam ne dama bëgg direct yi mbooloo mi. ku dégg nag mën ngaa dégg maa ngi koy sant keroog an bi ma joxee li may jox Antoine Félix Diome jërëjëf monsieur le ministre de l'intérieur mu ne ma koñ bii ngay defee jàng yi Seydou ma ne ko waaw mu ne ma samedi ñëw naa fa di def patrouille waaye tey jii danaa patrouille koñ bépp dalal sa xel waaye lii defal ma ko ci bis bii maa ngi koy sant bu baax Alaaji yu Fay moo dis gor Mbàkke yi moo baax Mbàkke nee na ma Seydou lii mësuma ko def xale tii sa loxo dawal sama oto yóbbu la ba ministre de l'intérieur dénk la ko ni nga mel ci man moo tax moo ma wan rasulilah Mbacke fay moo jël billet Makka may ma sëñ Abdou sama doomi Cheikh Soy bu may ma billet Makka sëriñ maxtar Jenn cour social mi ma tuddee sama doom ju mujj ji may ma billet Makka ma sant bu baax sëriñ Makhtar Jenn ma gërëm bu baax sëriñ Makhtar Jenn sëriñ Makhtar teral na ma sëriñ Makhtar sagal na ma sëriñ Makhtar siggil na ma ma sant bu baax soldaaru borom tuubaa Cheikh Mouhamed Samb soldaaru borom Touba bis bi jàpp na ma ci waaye jàppale na ma ci léegi nag maa ngi jéggalu mbooloo mi sëriñ Fallou doomi soxna Oumy Touba teral na ma teraanga yu rëy maa ngi koy sant maa ngi koy gërëm Mamoun nañu yeggale ba ci kanam Xaadim Gueye kokki sëriñ Xaadim Gueye kokki moom it yónnee na ci man ay teraanga jox na Lamine Seck enveloppe nee na na ma ko jox nee na dama koy dencal Mamour yeggaleel ñu ñëwaat ci sëñ Cheikh ak sëñ Modou Abdoul ak monsieur le maire léegi ma yeewi kilifa yi ñun ñu yeggale suñuy jàng marqué. Euh, enveloppe yi enveloppe yi Seydina Omar Gom ibnu Serigne Abdou Salam ibnu Seydina Omar ibnu Jaxfaar moo la jox enveloppe yi invité d'honneur la dafa am contretemps moo tax ñëwul waaye mu yabal rakkam yu baax yee ñu jóge ba Daaru Salaam Njàkkaan ngir bis bi depuis vingt une heure lañ fi ñëw waaye ku ne xam na ni programme bi dafa yeex tàmbali waaye bi mu tàmbalee ñëpp dañoo ñëwloo alaaj sëy bi yaa toll noonu yabal na fi Serigne Saliou Gom rakkam ak rakkam Serigne Fallou Gom ak seen doom Serigne Abdou Salam Gom waaye tabarkàlla nee na am na mbégte ak contentement ci def bi ko def invité ci bis bi euh, nee na am na mbégte ak contentement ci invité d'honneur bi nga ko def invité d'honneur ci bis bi moo wa moo waral rakkam yéen nga xam ne amul lu dul ñoom euh, mu yabal leen ñu def une forte délégation jërëjëf. Mamoun fi ma jëm day kenn ci man borom ndaam Serigne Khadim Lo Gaydel borom ndaam fajkatu aajo bi Serigne Khadim Lo Gaydel borom ndaam. sama sëriñ sëriñ sëriñ Modou Mamoun loo waaye man sama sëriñ mu may dimbali di ma taxaw jàpp ma lool waaye bëgg ma lool sëriñ ngañ buub bu ma ko séenee séen naa njabootu Cheikh Abdourahmane Fall ci laala xaadimul xaadim ñi may rendre hommage ñooy dugg noonu ah xalifa bee ñëw Cheikh Abdoul Aziz la ilaha illallah moom Cheikh Abdourahmane Fall ci laala xaadimul xaadim Cheikh Abdoul Aziz jàmbaari maam Cheikh Ibrahima Fall moom Cheikh Abdourahmane Fall ci laala xaadimul xadim balla jërëjëf la ilaha illallah allah ki rakam de akay bay faalam wax naa la ko nee naa leen ku dem keneen ñëw barke Serigne Fallilou délégation yaa ngi ñëw ku dem keneen ñëw la ilaha illallah soxna Kine bég naa lool soxna Kine ànd na forte délégation soxna ummi bàyyi góor ak soxna musli silla ak lingeer ak assu Gueye ak fatim maa ngi leen di sant maamun maa ngi woon ci jàmbaar sëriñ xaadim loo gay del borom naam fajkatu ajo bi mbooloo mi sëriñ xaadim loo gay del laa leen di wax tuuti rek joxe waat damay wax de sëriñ xaadim damaa ñëw ci moom soxna sooda badiaan mu ne ma Seydou ba ne ko Mbàkke mu ne ma dañ laa liggéey barki Serigne Touba mu ne ma fan yi da ngay nelaw rek ma ne ko dëgg la de ba mënumaa wàcc sama lal mu ne ma toogal déglu ma mu téye sama bopp lu mot une heure mu ne ma bis ki tey dindi naa ko waaye def naa ci yow li ñuy tudd xabool ku la gis dañ la bëgg barki Serigne Touba mboo caméra dafa doy waar mu ne ma dindi naa li ñu def ci yow waaye def naa ci yow xabool la gis bëgg la Serigne Khadim Lo gay dal borom ndaam alaaji Samba Diaw léegi lay tudd alaji Mbàkke fay maa moom a àndoon alaji Sàmba leer day leer xanaa ñëwal léegi lay tudd alaji Mbàkke fay sëriñ ale wañ Babacar Mbay waa Masaalig a ngi nii li may wax leer na de alaji Mbàkke ñëw na de ñii de boo leen gisee gis alaji Mbàkke fay may sant bu baax Chérif ay dara directeur général OPTA day sama sëriñ waaye sama xarit la mu ànd sëriñ Basiru Kan alquran soxna Yaara Mbàkke jërëjëf balay sa soxna Maam Mbar Mbàkke jërë ngeen jëf waaye ci soxna Xadija Mbàkke jërëjëf waaw baax na Malick nee na baax na ana Mamoun Mamoun kii sama maga sidage Malick la tudd ñoo bokk ndey ak bàyyi gis nga adduna lu doy waar kii Seydi Hadji Malick la tudd man Seydou tudd sama baay baax xanaa waaye may cëru sëñ bu baax di cëru sëñ fan maa ngi sant bu baax sama yaay jeetoo ajaratu Fatou Sarr bi ma tàmbalee damaa dem ci moom ne ko yaay xaalis baa ngi nii mbubb maa ngi nii loo ci bëgg damaa bëgg bis bi neex te jag mu ne ma demal moo ngi ne maa yaay jërëjëf bis bi neex na Mamoun Serigne naa Sakho maar bu VIP du naa ko ay yoon xam naa bëgg nañ ko waaye tudd naa ko waaw Seydou da ngaa tudd sëñ Khadim Lo Gaydel ñu may délégation alaaji Mbàkke yu ñu dugg ma bëgg laa jox enveloppe bi leeral la tuuti ci sëñ Khadim Lo Gaydel dolli la ci ñu may délégation Serigne Abdourahmane Fall Tilala Serigne Abdou Aziz Fall ak ñim àndal ñu toog may délégation alaaji mbàkk yu fay représentant Serigne Touba mu agsi ci njiital alaaji Samba Diaw alaaji Ali alaaji Babacar Mbay Serigne Modou Mamoun Lo da nga ànd ak Seydou yóbbu ko ci sëñ Xaadim Lo Gaydel sëñ Xaadim nag man maa ànd ak moom ci Serigne Abdou Aziz Al Amin man maa ànd ak moom ci alaaji maam bu kunta man maa ànd ak moom sëñ Ablaye Thiaw lay luy wax luy waaye di wax sëñ sëñ xaadim loolu nag ba maamun taxaw yaakaar naa ni war nga xam li ngay wax mu jël ay million xam nga su àggee lu muy wax Cheikh Sidi moxtaar moo la jox millions yi sëñ Sidi moo la jox millions yi lay def kooku ambassadeur u Serigne Touba loolu laa doon seere ci moom ambassadeur u Serigne Touba la Seydou enveloppe bii ma yor soxna na bu Thiam moom Serigne Abdou Hakim ana soxna Kiné Saliou mook so maag soxna Kiné Saliou la boole ma nga France waaye dafa wax ni Seydou yow dangay ngay cëram jël ab cër jox ko ko ci sa soxna mel ni yéen bokk ndey ak baay mi ngi nii toog ndey ka nit ki nag du jëlee cër jox la ko ni ni la yaay premier njëkk tudde ko doom kooku wàcc na kon nag mi ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal yàlla yàlla guddal saw fan moo la jox enveloppe bii jàngi exploitateur nag jàngi wax kat ku fa ñëw mu jël micro bi wax ko na ngeen ñu baal ndax tey jàngi wax kat la waxkat lu baax na ngeen ñu baal ndax Seydou moom tant na tànt bi gan ñi wuy si nañ ko waaye wax na jàngi tubarkal la Cheikh Anta léegi nañu toog jëf maa ngi sant bu baax ajaratu Seyni bu Thiam madame la ministre d'État Mbaye Ndiaye may sant bu baax soxna mam Marème Gaye moom Cheikh Abdoulaat bëggoon naa teew waaye yónni na Serigne Modou Mamour Lo ak Serigne Lamine Seck teraanga yu rëy ci man maa ngi koy sant jàmbaari Cheikh Abdoulaat ci jërëjëf Serigne Cheikhouna Sakho dégg naa lool bi boppam yépp la fekk fii nu toog waaye bi mu agsee ñoom ñépp dañoo daal di soppiwaat seeni toogaay soppiwaat jootaay bi te loolu li ko waral mooy Serigne Touba moo ne wa in tujalis man yakunu akbara min ko yuhaayilu saamanan wa tara ka an yoromu mursalan li haaja fahdi lahu lillahi tilkal haaja looloo sabab ñu def nii nu def bi muy ñëw fekk na fi doomam bi baax ji di Serigne Mountakha Mbacké mu Serigne Modou Bousso Dieng mu teew fii teewal bi soxna Bali Mountakha ànd ak Alaaji Yuusu Yàtt Serigne Moustapha Kouta sëñ Alaaji Lo sëñ Muntaxa Mbay ak sëriñ Maam Cheikh Anta Baabu mii sëñ Lamine Seck ak mboolem ñi ñu àndal waaye di sëriñ bi ñëwee ci la soppi jotaayam bii sëñ Abdou Fatah ngi noonu toog di sa doom di doom bi Cheikh Mamadou Basir moom Cheikh Mamadou Fadal baas bii moo ko moom baayam la sëñ bi sant waaye fii nga toog yaa fii sëñ Bass mu sëñ Fallu yaa fii sëñ Fallu yaa fii Serigne moo tax mu def nii mu def Serigne Baara Mbàkke sa doom mi ngi door a génn léegi mu sëñ Mam Mor moom mu sëñ Mamad imaam foofu nga toog moo fi toogoon bu soba li ma sàmbaak seex bi nga ñëwee moom mu def noonu yi mu def yoon wi nag nii rek la fuñ fu ngeen nu fekk di jàngal lii lan ni nawee yow nag Mbàkke kenn daa amul sa pay sëñ Abdou Fatah ngi nii toog mu Cheikh Modou Lamine Baara feggoog sëñ Galas Mbàkke Xadi Géy sëriñ Galas Amina ngi nii toog ànd ak jëwriñ ju mag ji di sëñ Xaadim Géy Alaaji Baara loolu dinañ ci ñëw léegi ci kanam waaye nag dafa am koog day kenn ci Seydou waaye nag di kenn ci alaaj sëriñ Cheikh Oumy muy kan sëriñ Modou Mbacke mii mu sëñ Abdou Wudoon sëriñ Cheikhouna Sakho mii nag alaaji sëriñ Cheikh Oumy may leen ma sama digg ak sëriñ bi alaaji sëriñ Cheikh Oumy sëriñ Cheikhouna mii nan ko may mu dem siyaare sëriñ bi kii mooy sëriñ Cheikhouna Sakho doomi soxna Mariama Sylla mu sëñ Maxtaar Kuna si sëñ Maxtaar Buna si nag ak Serigne Malick Bassine si ak Serigne Mor Khady si noo bokk li nu bokk sukkandoo ci kanamu Serigne Touba Serigne bi defal leen lim leen defal kon moom nag Mbàkke bu dee ne ci sunu biir ñu naan ko marabu VIP mu nuy defal lu ne nga teew fi di sëñ Touba di sëñ Fallu bala moo génn baas bi daa war a ci yow Mbàkke siyaare la Serigne Seex noo ngi sàkku ci yow ni nga ñaanal ko. ni nga dimbali ko ni yàlla yokku ko yàlla sàmm ko ni yàlla aar ko ba lim yéene lépp yàlla na ko yàlla defal sëriñ sëriñ na jiili mbàkke mii toog di kenn ti alaaji Seydou mi ngi nii toog fegoog rakkam sëriñ Seexuna Mbàkke riw diis sëriñ na jiili nag noo koy sant di ko gërëm bërki démb yaa ma ni ñëpp na ngeen waaj le 10 décembre ca euh, Touba Gueye ndax ren sama sëriñ sama yaakaar moom leen ko tuddee muy sëñ Abdou Khadir Mbacke Ilimani Ilimani kon yow boo ñëwee sëñ seexu naa toog dañ lay sant gërëm la li fi ëppoon nag ci ay commentaire Alaaji Seydou wax na ko liste baa ngi sama poos ñu ñu war a lim ñëpp dañu leen lim borom yat wi daal ñëw na ànd naa ko sunu mama ajaratu Soda Badiane mi nga xam ni lépp lu ñor te kër ga parking bala koy yàqee lu baax mu indi ci parking bi jàpp xaadim jàppale ku mu am fekk boog nag soxna Ami Lo mii moom sëñ Saliou nga xam ne tey ni xel koom la yemb kon nag sëñ Xaadim Gueye yow la ñu wax ni nanu yëkkati kàddu gi jox la ko ndax li fi ëpp ci commentaire def nan ko bu ko defee